c'est une bonne chose parce que lép loo gis transparence daf ci baax bu fekkee transparence rek lañ ci ut on est on est tout à fait d'accord et man je salue l'initiative parce que gis nañ fi ay ay ay nit yu jógee extérieur ñëw eh, eh, eh, ji fi boite ñu bañ ba tëdd ci suuf na duñu duñu nekk en règle ñuy ñuy ñuy débaucher ay nit di leen di leen di leen fa di leen fa liggéeyloo ci ay fen da ñëw ne la lii alors que moom ndekk nekkul sax en règle balaa ngay xam ne nekkul en règle fekk dugg nga foofu noonu avec des contrats yoo xam ne yu fallacieux la euh, finalement beaucoup de gens mu leen ay problème ci seen carrière ak yooyu noonu il y des gens yoo xam ne tey dañuy ne journaliste lañu alors que seen locaux yi kenn xamul fan la dangay dem benn rencontre gis liste de présence presse bi Euh, recto verso lay nekk gis ay sites yoo xam ne boo boo ko tapé woon boo gis page bi c'est c'est du n'importe quoi en fait te loolu noonu aussi ça a à ce que presse bi mu précarisé wu nii tey aussi ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo tijji seen seen boîte yi euh, ay ay nekk ay politiciens yoo xam ne tijji nañ ko rek parce que ils ont envie de de de faire des propagandes li ñuy dox ak li la les règles de d'éthique et de déontologie ñoom ils n'ont rien à foutre de ça te loolu noonu euh, tax na tey xoolal presse bi tey ni niñ leen ni niñ leen di traité la presse la la presse tey jii ku ku ku ñàkk loo koo xas rek presse bi ngay ñëw xas dangay gis ñoo xam ne gënuñu la si dara. Mhm. mais parce que journaliste nga euh, waaye yenn journaliste yi yenn. journaliste yi boole ñëpp si benn boole ñëpp si mhm. ñëpp parce que mhm. alors que nit ñi. ñi jub ñu ngi fii jubbaleeg te corporation boo dem am na ay ay ay ay nit yoo xam ne dañuy jubadi mais nit ñi fii nii ñi ku nekk nu ñu la yaree noonu ngay liggéeyee ni nga mel sa kër noonu loolu ngay wone si si fi ngay liggéeyee kenn du lay yàpp ku lay ku lay fay du lay yàpp parce que sekkoo leen lu dul nga liggéey mu fay la mm-hmm. tu vois donc mais ils ont tellement précarisé la presse ba nga xam ne léegi kenn xamatul kan mooy kan. Mhm. kenn xamatul qui fait quoi. Mhm. donc loolu noonu bu ñu ci indee transparence tegaat lépp ci yoon qui n'est pas journaliste qui est qui est patron de presse qui n'est pas mhm. patron de presse qui est kenn xamatul ça va dans tous les sens donc il est temps que ñu ñu ñu régler loolu mu leer ñëpp ku nekk nag nga xam fi ngay taxaw defe naa loolu maintenant nag que ça ne soit pas aussi un moyen boo xam ne dañ koy jël pour pour topp ay nit di leen di leen di leen di leen di leen teg pression peut loolu laa ci ragal mais bu fekkee l'intention, elle est sincère et elle est équidistante par rapport à tout ce qu'il y a comme, comme, comme, comme répression. Moi, je salue l'initiative.